sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñëpp di gërëm bokki taalib yëpp di leen sant di leen gërëm ci liggéey bi nga xam ne yàlla def na muy liggéey sëriñ Touba suñu borom di def muy dox ba agsi ci loxoom bi mu agsee ci loxoom itam mu fës ko yéene ànd ak yéen ndax ni mu koy waxee rek lépp lu mu yéene boppam la leen yéene nee mu xamal leen ne leen bëgg na yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci liggéey bii ngeen gën a góor góorluwaat gën a fabuwaat gën a laxasaaywaat te xam nga am ngeen sasu rëy mooy lii ñu leen dénk te ki ne ci bopp ba di sëriñ Abdou Ahad Ka moom ñi nga xam ne yàlla def na mu newoon fii te ko fi tegoo nit ñëpp xam nañ ko bi yàlla def tànnee fi jub itam sëriñ Sidi moom dafa waxoon ne day diglu ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha kon nag yéen ñi nekk ci biir liggéey bi na ngeen gën a góorgóorlu loolu la sëriñ bi wax neen na ngeen gën a góorgóorlu te yeesalaat seen i laxasaay yeesalaat seen i positif te xam ne sas wu rëy ngeen am ndax takkilif la waaye du tashrif responsabilité la waaye du daraja adduna nag dafa yàqu lu lu lu lu lu yàgg rek seytaan dana ci jéem waaye mbiru Sëriñ Tuubaa seytaane mënu ci dara ndax ku ne ña ngi lay jéem a gisloo sa bopp di la jéem a jox xalaat yu bokkut ak li sëriñ bi tëral te xam ne kat ñëpp dañoo laxasaay woon fekk sëriñ Tuubaa te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na sëriñ Tuubaa nee na Tuubaa ku fi sam xel indiwul saw xel dana def indi kon yooyu rek fi ñëw ñi fi seenum xel indi ak ñi fi seenu xel indi waaye la sëriñ bi waxoon rek Cheikh Mamadou Mountakha ne mi ngi koy fàttaliwaat ñëpp mooy ñi am taw féexe dëkk ci dëkk bi nañ xam ne ñoo am taw féexe dëkk ci dëkk bi di taw féexe ju leen suñu borom defal kon nag dëkk yi ñu dëkk ak Sëriñ Tuubaa nag ñaanal na leen doy sëkk taw féex ak ndimbal buñ jéem a sàkk leneen loolu ngërëmu Sëriñ Tuubaa ndax jamono dafa yàqu li baax lépp dafa sotti ba mat li waaye li bon lépp dafa sotti ba mat yàlla defal ñu tawféex nag sëriñ Touba rawale ñu ci dëkk bi te waxooloon na boppam ne dox na ab diir àdduna sépp dana dana defuk daay takk ku ci bëgg mucc demal ci sama dëkk bi ci Touba te li weesu lépp wane na ko lii fi mu jaxe mu wér di yee am bu yàggutu xam ngeen ni ci tawféex ji suñ ko am defal ak li coow li bari bari Touba daanaka yëguñ ne dara xew na fi dunduñ ko doxewuñ ko te wàññiwu leen dara kon xam ngeen ne Sëñ Tuubaa am na lu mu beral waa Tuubaa ci bañ a fexe ba dafa bari yu ci àdduna di yàq te seen yàq sax mënta am njëriñ ndax yàlla suñu borom noppi na ci lépp ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa xam ngeen ne mooy yonent bi bi tax ñu bind ñëpp moo gën a tedd ci nit ñi waaye rasulullahi mooy yonent bi gën a kirite gi ci àdduna te ba fi ne lislaam mooy diine ji gën a màgg ci àdduna kon Serigne Touba noonu rek la demee dama naan leen jërut tontonte jërut waxtaane jërut xalaat jërut jaaxle ndax yoon wi ci noonu la judd ba mu jugee ba nëgëne ña fi ne woon di ay colonialiste ak ña fi ne woon bokkoon ak sëriñ bi diine ji te fiiraange jàppoon leen ak caddo yam yam ko seqaloon te yéenewuñ ko jàmm pexe yu sam xalaat yu sa xalaat yu sam xel dem jéem nañ ko waaye mënta jeexate ci mbirum Sëñ Tuubaa luñ gën a def mbirum Sëñ Tuubaa di gën a jëm kanam pasif yi di gën a dëggu taalib yi di gën a gëm mënta am jenn jeexat sëriñ bi ndax dañoo toll ci jamono yu xoriyatu ta'bir ku ne sañ wax sa xalaat waaye sañ wax sa xalaat googu dëgg la waaye tubaab yi ko indi ndax lislaam nanguwul loolu allazina yu'minuna bil xaybi yaa tënk sa bopp wax naa ko bu yàggul àjjana kenn mosu kenn mosu caatik sa ba te ñëpp dañ ko gëm sawara kenn mosu caatik sa bët dañ ko gëm jéggi kenn mosu caatik sa bët dañ ko gëm kon yi yi ne demee yëpp bu dee ab yonente itam daa wàcc rek xëy wax le na suñ borom wax na nangam nga gëm ko kon nag xam ne bu fekkente ne jamono dem na ba tubaab yi bëgg dugalaat nit ci seeni xalaat ngir gëm gëmloo neen ne leen lépp loo xam ne dëppoo sam xel da nga ko war a weddi kon loolu li ngay gëm dafa contradiction ndax mënoo gëm loo xam ne danga nga koo tëj ci kumpa ba noppi gëmaat loo xam ne ci xel nga ko bëgg a teg diine dafa dë dëppoot ak xel inna diina mabniyun ala naqli la ala munasabati naqli moo tax Seydina Aboubacar dafa waxoon ne at tafakkuru al ajzu fil idraaki idraakum wal fikru fi zaatillahi istaakum saa soo demee ba xam ne yàlla kenn mënu koo xam boobaa xamale kenn gënu lu koo xam mm-hmm. waaye Sëriñ Tuubaa wax na ko ba tàyyi du duma ko ñu xam néew ma ci téere yi mm-hmm. kon ñun nañ dëgër te gëm Sëriñ te bañ a may buntu nag noone Sëriñ yi ndax yaar dafa am ñii dañoo xamut di wax ñii dañ leen di ndax ñuy wax mm-hmm. ñii dañoo xamul di wax ñii dañ leen di nax ñuy wax ki nga xam ne noonu Sëñ Tuubaa la di noonu yoon wi lu mu dégg ci yoon wi muy lu bon kooku bu biggee ci say wax war ngaa xoolaat sa bopp mm-hmm. te li ci ëpp loolu la am na ci ñoo xam ne sag bi yàlla defal Sëñ Tuubaa ci biir dëkki Tuubaa neexu leen kàddu gi nga xam ne moo ne ci Tuubaa mooy génn kàddu neexu leen mm-hmm. lu leen danañ ko dégg nag bu sëriñ bi waxee bu sëriñ bi wax loo nit ñu ne sëñ bi wax ko bu sëriñ bi waxee la boppam ci ñu ne sëñ bi kat ay nit fa dem wax loolu fa la fa loolu ñàkk positif la ndax bu sëñ bi waxee ci làmb ñam nga ne sëñ bi ko wax loo mooy la suñ borom waxoon yonent bi ci alxuraan ne ko bokk na ci nafiq yi seeni wax wa minhum allasina yuusuuna annabiyya aw yaquluuna huwa usnun yonent benn nopp la loolu mandarga naafiq la yaxdaru almunaafiquuna nag an tunazzala alayhim suuratun tunabbihum fi ma tunabbihu bi ma fi qulubihim suñu borom di wax ci alxaane ne naafiq yi dañuy tiit lool aw aaya wàcc boo xam ne day xibaar li li doon xalaat kon loolu ñëpp ko war a wattandiku te xam ne sëriñ bi dëkk bi seq ko kenn moo ko ak njabootam fi ne njabootam gi fi nekk moo tax lépp lu mu yëkkati yërmaande ji mu am ci ñoom bëggul dara dal seen kaw bëggul dara metti ñoom waaye nag ay nit booy ànd ñoom it dangay ànd ak ñoom ci dëgg hmm. li yées si àdduna nag mooy ku ñëpp ñetti ñëwul boppam te loolu gàllankoor la. Cheikh Mouhamadou Mountakha nañuy xool ci moom buñ xool ci ñun ñii ndax ñun adduna mënuñoo jàpp adduna mënuñoo jett mënuñoo jum waaye moom mi fi nekk Sëriñ Tuubaa eh, wamaa yantiqu anil moo doon Sëriñ Tuubaa moo doon Rasulullah du waxe bakkan yi tënk ko la ne sama digg ak tubaab yi kenn doyuma ci sama digg ñoom ndax ku dul man mën nañ laa xëpp wala ñu xëpp la mm-hmm. man nag mënuñu suma xëpp mënuñu suma xëpp moom mi fi nekkal Sëriñ Tuubaa kenn mënta xalaat kenn wërta xalaat ne sëriñ bii kat nangama tax wala adduna tax muy wax li muy wax ndax lu ko tënk ci adduna amut ndax moom bu dee dara ji moo ko ëpp ñëpp te war a xool fi ñuy teg suñu tànk te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na ne murit daa war a mel ne ëkk te bañ a mel war a bañ a mel ne xobu garab mm-hmm. waaye lii bëgg a xew ci jamono fu ne nit dafa jóge mais dëkk bi amul kàddu wala amul baat loolu ñoom tële bëgg doon suñ bopp rek la nax nag ndax Sëñ Tuubaa kenn mënu ko nax. Sëñ Tuubaa ba mu fi nekk nag ndax loolu yàgg na ci lislaam am na ñu ne woon ci jege yonent bi wuyu ma ne xawla ko min al arab bu naafiqoon wa min ahlil madinati kon loolu yàgg na fi. kenn mënu ko dund ci lislaam. Sëñ bi mu nekkee njariñ ñëpp xam ngeen ne am na ñu fa newoon te nekkaloon fa seen bopp. waaye ña fa positif bàyyi woon. ba na gën seeni sëddi ñëpp a leen ñaan ndax léegi suñ tubaab defal kenn mënu ko dindi la mu waxoon maam Cheikh Ibrahima rek ci mujj gi ba mu demee ne ko Mbàkke ndax deseeti nañ fi dara fekk sëñ bi di waxtaan nit bu àggale ko ba noppi ne ko loo wax nga ne mu ne ko Mbàkke ndax deseeti nañ fi dara mu ne de la ma waxante woon yow ci Mbàkke Kajoor ba na loolu dara dayum ci man sama mbir lépp ëllëg la lépp lu ngeen gis ci àdduna dafa mel ne ndab luñ duy ba mu tuuru lay tuuru ca ndab la loola mooy li ngay di si àdduna waaye la la la ci des lépp ëllëg ko tax ju kon nañ bàyyi xel la sëñ Saliou daa wax nee na sëñ Tuubaa nee woon na saytaane de naago na ci gàkkal ma ci yéen waaye nee na bokk na ci yi ñu yàqale murid yi saa su sëñ ju dajale nit ñi ba wax buñ génnee lay njëkk wax mooy sëñ bi li wax kenn mënu ko wala buñ ko mënoon luñ si wut si kon yii jamono di jaay mooy ay liberté ay démocratie yëpp ñun am na leen lu si démocratie ay xalaat la rek ndaxte boo xooloon Sénégal ñëwate ndax mën nañ ñeent million yaakaar ma ne ëpp na ko te Sénégal mën na fukki million nangam yu juróom yu tegal kon la ca des lépp wëte wuñu ana seen xalaat yum kon loolu formule la rek Touba nag bu fi ay junni junni junni di nekkee kàddu sëriñ bi ak bëgg-bëggam gënal leen seen xalaat ñu bëgg leen jaay seen démocratie bi ne mooy démocratie bi dëppook jamono dañ leen nax kon fii yoon li yoon wi traversé jaar fu ne jamono Cheikh Mouhamadou Moustapha jamono Cheikh Mouhamadou Fadil ba agsi fii tey ci lu ne mu traversé ko saa su xëyee yoon wi di gën a màgg di gën a yàkkali ko loola nañ xam ne mooy suñu njiglaay leneen luñ def kat dañuy nax suñu bopp waaye du ñu jëm fenn te xam ne lii am Tuuba adduna sépp lu yéem. képp ku fi dëkkul rek wala ku fi dëkk yéem na la ci àdduna sépp mooy modèle bi nga xam ne yoon murid noonu lay dunde mooy ni ñu laaje ak ni ñu koy investir ci dëkk bi ak ni leen sëñ bi gën la seen lépp loola nag am na ay ay ay force yu bari bari yoo xam ne jug na ngir bëgg jaxas xel nit ñi mënuñ ko nag ndax du am jeexit waaye nag war nañoo xam suñ bopp ñii wax ak nit ñi war nañ leen di wax dëgg te bañ leen a dàkk ci liñ bëgg ndax jamono ji nit ñi léegi dañoo xewal saa soo waxee boo waxee lu dëppoog seen bëgg ñu ne alhamdulilah rabbil alamin boo waxee lu dëppook lañ bëggut wax ja ñu ñu ñu ñu wax ja loola nag jàpp naa ne la ciy musal ñëpp mooy ne suñu kilifa daa def mooy seet lay dëgg nga wax ko seet lay dëgg nga nekk ca bañ a seet lu neex nit bañ seet lu naqal nit ndax loolu nit ñi kenn mënta fexe ba am lañ bëgg la daloon nitu yonente yàlla Moussa fii saa jaatum alxasanatu qaalu lana haasihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Moussa wa maahu loolu rek mooy li fi ne ba léegi nit ñi saa soo waxee lu ñu bëgg ñu sant boo waxee lu lu bokk sa liñ bëgg dégg nag ñu wax ja naqari leen kon nag la am solo mooy seetal la nga gëm nga di ko wax rek la ca histoire mooy atte te xam ne eh, nit ñi kenn mënta jot seen gërëm ridan naasi xaayatun la tuddot kon la Serigne Touba waxoon rek fa li ñuy tënk nopp la daa waxoon ne bu leen sonn ci sàkku ngërëmul mbindeef yi ndax kenn mënu ko am te ku ci sonnoon ba am koy du la jëriñ dara kon na ngeen fexe ba góorlu ci sàkku ngërëmu yàlla suñu borom bi leen bind bu leen ko sàkkoo ba am ko bu leen yàlla suñu borom gërëmee mm. bindee fi dañ leen gërëm te duñ ko sañ